asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi fii ci jumaay Cheikh Seydi Aboubacar Sy waa kër Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil yaa ngi noonu tabarakallahu di ñëw ci rawdu bi nga xamante ni fi la Serigne Babacar Sy daan toog tabarakallahu bu demee fekki mag ñi seen baay yu tedd ya Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi Serigne Abdoul Aziz Al Amine ñëpp ñuy daje foofu gis nga Serigne Babacar Sy seen ñi noonu tabaarakallaahu di doomu soxna mul xayri si tabaarakallaahu ñu tudde ko ba Babacar si moom it mu ngi noonu tabaarakallaahu di nuyu xalifa Ababacar Ñang Mansour Diène tabaarak bay Mout Ndaw mi daa ànd ak Serigne Abdoul Aziz Al Amine tabaarakallaahu mu ngi noonu nag jëm fi nga xamante nii mooy ca Saalum waaye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum Al Mansour mu ngi noonu tabaarakallaahu di ñëw nag di dem la baayam ba daan def Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi mu ngi noonu ànd ak alxaaji Paati Diop tabarakallahu maa ngi fay seen xalifa Ababacar Niang ñu ngi noonu toog tabarakallahu di waxtaan te buntu saal ba fa si yéene xool naka la ñuy organiser li nga xamante ni mooy julli aj gi tabarakallahu si Cheikh Ahmed Tidiane al Mansour mu ngi noonu ak a baax ndeysaan ak a baax te yaatu te yaru te bari xam-xam tabarakallahu mbokk yi mu ngi noonu di dugg fa bàyyam ba daan dugg Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi mu ngi noonu di dugg fa mbaayam ba daan dugg Serigne Abdoul Aziz Alamine waaye tabaarakallahu mu ngi noonu di nuyonteeg ñi nga xamante ni Cheikh Ahmed Tidiane Sall ngi noonu di doom soxna Daba Mbaye tabaarakallahu moom lay nuyu noonu waaye waa kër Serigne Moustapha Sy Jamil yi Serigne Moustapha ngi noonu tabaarakallahu waaye sëriñ Sidi Ahmad moom it tabaarakallaahu ñoom ñëpp di njabootu sëriñ Moustapha Sy Jamil tabaarakallaahu ñoom lay saafanteel noonu mu ngi noonu di saafante ki nga xamante ne nag mooy Babacar Cissé bu soxna mul xayri si tabarkalla tabarkalla mag ñi nii lañ ko daan defee bu julli it masaana jot fii la daje ci salle bi nga xam fi la sëriñ Babacar Sy daan toog tabaarakallaahu sëriñ baa ngi noonu toog di ko ñaanal yàlla mu gudd fante wér ak bëgg njaboot ak am yërmande ci néew doole tabaarakallaahu lépp lu ko jaam yàlla yi ci tabaski bi delloo na ko ci jaam yàlla wallaahi néew di doole yi sëriñ bi dimbali na leen néew di doole yi sëriñ bi jox na leen li mu yor tabaarakallaahu bokk yi ñu ngi noon di ñaanal daal sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Mansour yàlla guddal fanam te mooy ko wér ci barke yonent bi sama jarbaat baa ngi noonu euh, Cheikh Ahmed Tidiane Sall di doom ci soxna Daba Mbay borom waañ wi tabaarakallaahu ñu ngi noonu toog fa seen baay ya daan toog fa seen maam ya daan toog tabaarakallaahu di xaar sëñ Mouhamadul Moustapha Sy waaye sëñ Mouhamadul Moustapha Sy ngi noonu dina yoon ibn sëriñ Abdoul Aziz Al Amine jàmbaar yi fakk tëdd ji nga xamante ni fa bàyyam tegoon tànkam fa la teg tànkam mbokk yi tey nag ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy jumaay Serigne Babacar Sy ji di préparer dem julli ji it fële raw rawdu Serigne Babacar Sy ba Serigne baa ngi noonu tabaarakallahu xalifa ña ngi noonu gàttandu ko waaye xabibee ngi noonu tabaarakallahu di nuyoo alxaaji Tidiane Saw mbokk yi ñu ngi noonu di dugg nag foofu nga xamante ni mooy ca saal ba magam yu tedd yooyu nekk tabaarakallahu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi noonu tabaarakallahu di dem Seydou Mouhamadul Moustapha Sy responsable moral mu ngi nuyu di nuyonteeg Babacar Niang tabaarakallahu mu ngi noonu Pathé Diop mu ngi noonu di nuyonteeg bokkam yu tedd yooyu tabaarakallahu si Malick yàlla na yàlla guddal seen fan damay leen wér mission bi ngeen taxaw mu ngi noonu di nuyoon Serigne Cheikh bu doon nuyontee ba pare rek li ñuy def mooy dañuy def la seen woy jur ya daan def mooy ñaan tabaarakallahu doog a nag dem ca rawdu ba ngir fas yéene julli Serigne baa ngi noonu joxe na ñaan Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Mansour ñu ngi noonu ñu war a jàng ñaan gi war a àndandoo ñoom ñëpp nag tabaarakallaahu dem ci fi nga xamante ni mooy ca rawdu ba fas yéenee def li nga xamante ni mooy julli ayit bi tabaarakallaahu bokk yi taalibi Sidaaj Mar yëpp bëgg nañu taalibi Serigne Babacar Sy yëpp bëgg nañu taalibi Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif yi bëgg nañu Serigne bi joxe na ñaan pour ñu ñaan fas yéenee dem nag fi nga xamante ni mooy ca rawdu Serigne Babacar Sy ba bokk yi ni ñuy def rek mooy di ñaanal njabootu Sidaaj Malick gi yàlla defal leen jàmm waaye nag tabaarakallahu di ñaanal njabootu Seydil Hadji Malick gi yàlla defal leen wér tabaarakallahu yàlla di leen ñaanal njabootu Seydil Hadji Malick bi mission bi fi seen man ba fi seen maam bàyyi seen bàyyi tëdd yi bàyyi ko fi ñu yeggale ko ci bismillahi rahmaani rahim commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin bokk yi mi ngi noonu alxaaji mi ngi jëm ak Mame Ndokh TV sëriñ baa ngi noonu di ñaan lu fi ñaan yàlla ko yàlla nangu ci barke yonent bi ku ne amin yàlla nga ci bopp bi ba pare nag noonu la ñuy def dañuy génn tabaarakallahu ñoom ñëpp ñu àndandoo jëm fi nga xamante ni mooy raw doo ba sëriñ Babacar Cissé ngi noonu di génn maa ngi seen sax Tidiane Sall tabaarakallaahu mu ngi noonu di génn tabaarakallaahu waaye nga xam mooy sëriñ Mansour Niang ma ngi xalifa Ababacar Niang mu ngi noonu di wàcc moom it tabaarakallaahu ànd ak ñi nga xamante ni ñooy taalibe Alaaji Maalik yi nga xam ñoo ànd ak surtout Sidi Alaaji Maalik yi maa ngi seen nag nga xamante ni mooy sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Mansour mu ngi noonu di wàcc tabaarakallaahu ànd ak jaami yàlla yi ñu war a dem defi li nga xamante ne mooy farata ji sëriñ Mouhamadul Moustapha si ngi noonu génn tabaarakallahu mu ngi noonu ñoo ngi noonu wàcc fas yéene jëm ci fi nga xamante ni mooy jumaa ja yal na yàlla barkeel yal na yàlla def càmm yal na yàlla indi ay xéewal ci réew mi tabaarakallahu ñu ngi noonu àndandoo ñoom ñëpp jëm nag ci raw du sëriñ Babacar si bi nii la ko Cheikh Seydi Aboubacar si daan defee tabaarakallahu rakkam yi dar ko nii la ko Seydi Alxaaji Abdul Aziz daan defee yi dar ko nii la ko Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi daan defee rakkam yi dar ko nii la ko sëriñ Abdul Aziz Al Amin daan defee rakkam yi dar ko waaye tabaarakallaahu nii la ko sëriñ Babacar si Mouhamadulil Mansour daan defee ànd ak ñëpp dem fële ca xalxuus waaye tabaarakallaahu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Mansour it nii la koy defee rakkam yëpp dar ko mu ànd ak ñoom wuti fi nga xamante ni mooy raw du sëriñ kër si yàlla na yàgg ku ne amin yàlla nga ci bokk ci barke yonent bi maa ngi leen ñaan képp koo xamante ni li may def ci xadara Seex Seydi Haaj Maalik bi neex na la maa ngi lay ñaan nga abonné ci sama compte boobu ndax damaa mu am 150 000 abonné bala ñoo gàmm te loolu barke Sidi Hadj Malick mën na ko barke Serigne Babacar si mën na ko amore bi yomb na loolu ñu bind sabone rek moom ngay bind bu cloche de notification bi génnee nga bës ko bu ko defee lu ma defete ci àddina nga gis ko Serigne baa ngi noonu di dugg ci raw du maamam ba nag Serigne baa ngi noonu di dugg ci raw du maamam ba nag sëriñ saa ngi noonu di dugg ci seen raw du maam ba tabaarakallaahu jërëjëf si Malick yàlla na yàlla guddal seen fan damay leen wér tabaarakallaahu si Malick daa mel ni ki may seen waa kër Abdoulaye Ndiaye ngal gu la maa ngi gis naa fa Baye ngaal wallaay sa baay bu tedd ba lu ne defal na ko si waa kër sax seen xaaj Maalik ba Baye Ngal gu Njaay tabaarakallaahu ba ci doomam ji Abdoulaye Njaay Ngal gu li mu def xadar Seex Seydi Xaaj Maalik mu ngi noonu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum lu mu koy joxe si Demba Xure yàlla guddal fanam te may ku wér yal na yàlla guddal fanam te may ku wér tabaarakallaahu moo ko rakkam yi mu àndal Serigne Moustapha Sy ibnu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mbokk yi ñu ngi noonu ci seen raw du baay bu tedd ba nag seen raw du maam ji Serigne kër si noonu lañ koy defee jullit yàlla yi ñëw waaye daa mel ni ki may siin Abdoulaye Ndiaye Ngalgou la taalibi Serigne Abdoulaye Salamine bi l'infatigable Cheikh Ahmed Tidiane Diouf a ngi noonu waaye on euh, monsieur le maire Pape Momar Gueye moom it mu ngi noonu tabarakallahu ah Pape Mari Diop a ngi noonu di doom suñu yaay soxna mu kël sombay seen naa ko tabarakallahu waaye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum a ngi noonu tabarakallahu moom it di fas yéenee julli ñaari rakk yi nga xamante ni moom lay jiital tabarakallahu ak waa kër Cheikh Seydil Hadj Malick yëpp tabarakallahu mu ngi noonu Serigne Moustapha Sy ngi noonu koy ñaanal mission bi ak yan bi yàlla teg ci boppam yàlla woyofal ko ko tabaarakallahu Abdoulaye Ndiangal goo ngi noonu di nuyonteeg Serigne Babacar Cissé tabaarakallahu waa kër Serigne Moustapha Sy Jamili Serigne Sid Ahmed Serigne Moustapha tabaarakallahu ñoom ñëpp a ngi noonu ñëw nañu ci raw du seen maam bi tabaarakallahu Serigne Babacar Sy borom bone carré bi borom sàkkare yàlla bi tabaarakallahu mu ngi noonu alxaaji mbé ngi jëm ak mam ndoxte bi Serigne Cheikh ngi noonu di nuyonteeg Abdoulaye Ndiaye Ngalgu tabaarakallahu waaye Serigne Moustapha Sy ngi noonu di nuyonte Abdoulaye Ndiaye Ngalgu taalibi Serigne Abdoul Aziz Al Amine bi tabarakallahu ci raw du Serigne Babacar Sy loolu xandeer la bu demee ci war tukkiwul dafa ñibbi noonu la ko bàyyam ba alxaaji raw alxaaji Ngalgu Ndiaye daan defee tabarkalla tabarkalla xelu tijaan yëpp dal na xelu jul yëpp dal na xelu taalibi Sidi Hadj Mali yëpp dal na waaye xelu taalibi Serigne Babacar yëpp dal na ndax seen ànd bu rafet bi tabarakallahu yal na yàlla barkeel ko yal na yàlla defal leen sutura yal na yàlla defal leen wér Serigne baa ngi noonu di nuyoo ci biir yal na yàlla dafa leen jàmm yal na yàlla guddal seen fantawee leen wér waaye ma leen wax ni leen bu leen fàtte abonné ci compte bi damaa bëgg balaa gàmm moom 150 000 ngir jëmmi sax Seydil Hadji na ko ñëpp def maa ngi lay ñaan nga abonné ci compte bi abonné bi yomb na waaye Pape Malick Mbaye ngi noonu ñëw na Pape Malick Mbaye ngi noonu ñëw na Pape Malick Mbaye julli si na it tabarakallahu Baye Ngala ngi noonu waaye Cheikh Ahmed Tidiane mi ngi noonu bu Serigne euh, Baye Mbaye Donde waaye Abdoul Aziz Dikore tabarakallahu kooku doomu Abdoulaye Ndiaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla barkeel sëriñ baa ngi noonu bu ñu jullee ba pare nag dañuy ànd sëriñ Pape Ayda ngi noonu di taw ci sëriñ Abdoul Aziz Al Amine ànd ak sëriñ Babacar Cissé tabarakallahu ak sëriñ Sidi Ahmed si bu sëriñ Abdoul Aziz Al Amine sama sëriñ ñuy dem di gunge ci sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Mansour pour mu dem delluwaat ci kër ga tabarakallahu lii daal ku ci sa xol sedd yal na yàlla def nga fekke ko at yu baree baree baree baree ci barki yonent bi ku leen di ñaanal di leen wax déwénati leen fekki leen déwén jërë